Euh, monsieur Mamadou Sy Albert euh, ñu ngi lay nuyu. di la dalal tey jii en tant que analyse politique wax ci li nga xam ne mooy euh, situation politique dëkk bi rawatina parti socialiste jamono ji gis nañ ne ku nekk taxaw na thème pour diriger boobu le parti Serigne Mbaye am génn na wax ay ambition am clairement donte ki nga xam ne jamono ji moo fa nekk di assurer intérim bi nee na wax ji jotagul. tey nan nga ñu mën a jàngatalee euh, li ni mel. lu ñu doon lu ñu doon seentu la nag euh, xam nga parti socialiste euh, Ousmane Tanor Dieng jiite na ko lu lu yàgg bon bu mu génnee àddina ñoom ñëpp parti socialiste yi dañu d'accord ne que nañu nangu intérim bi bu bu fi nekkoon temps Ousmane Tanor Dieng nañ ko bàyyi mu àggale. moo mm-hmm. àggale mandat donc ñoom ñëpp dañ d' accord que Aminata Mbengue Ndiaye mën nañ def intérim bi. Mhm. mais débat bu génn nii day firnde que intérim bi dafa xaw na xaw na jeex intérim bi jeex na parce que ñoom li ñuy mooy dañu war a def renouvellement dañu war a seetaat seen structure jéem xool aussi lu ñu choisir ku leen nar a jiite. Mhm. donc loolu euh, wax bu euh, bu ñu doon xaar la Euh, léegi nag euh, lu ci am mooy moo di ne que euh, Serigne Mbaye Thiam wane na moom tamit bëgg na nekk njiit ba parti socialiste. Mhm. léegi nag est-ce que direction bi dina nangu waxtaan. ci affaire renouvellement instance yi ak jéem a seet kan moo leen nar a jiite. Mhm. defe naa loolu daal la ñu xaar en tout cas lu muy wone mooy que gis-gis Serigne Mbaye Thiam ak gis-gis Aminata Mbengue bokkuñu. Mhm. léegi nag est-ce que dir bureau politique bi wala comité centrale bi est-ce que dinañu jël débat boobu pour gën a en tout cas soude seen euh, seen parti gën a am benn xalaat pour wax dañuy def renouvellement naka lañ koy defee et cetera et suñ ko deful nag. loolu mën na indi coow seen biir. coow loolu sax ndax li ñu gis jamono ji euh, wanewul avenir parti buy. waaw avenir parti socialiste boobu loolu moom mooy question bi loolu mooy question bi naka la parti socialiste war a taxawee fii ak deux mille vingt quatre. Mhm. Euh, loolu euh, defe muy Serigne Mbaye Thiam muy Aminata muy ñeneen. Mhm. xam nañ ne que le ñun euh, yi ñu ngi xaar parti socialiste mhm. ban pexe la la la la la war fii ak deux mille vingt quatre. Mhm. Euh, donc ñu ñu ngi séntu euh, que parti socialiste soit ne man dinaa am candidat wala du ma am candidat deux mille vingt quatre wala nee leen man ñun suñu projet de société lii suñu organisation lii nii la ñu war a taxawee ci élection yi nii la ñu war a Sénégal loolu ñëpp loolu la ñu xaar ci ci parti ci parti socialiste. tey lu mu am tendance yi nga xam ne ñoo ngi dessiné wu jamono ji mënul euh, tas parti bi. waaw waaw mën na tas parce que parti socialiste bon ci ci lu ko tas ci lu bari. Euh, ñàkk jub juboo la mm-hmm. euh, depuis temps Abdou juuf ba ba Ousmane Tanor Dieng euh, faiblesse parti socialiste mooy que euh, ba léegi amuñu expérience débat contradictoire seen biir ba mën a juboo tànn benn boo xoolee Niass loolu moo taxoon mu dem hmm. Djibo Ka loolu moo taxoon moo dem Khalifa Sall loolu moo taxoon ma dem donc loolu yëpp li muy firnde mooy que ñii tamit euh, Aminata Mbengue Ndiaye ak Serigne ak ñi ñuy jiite socialiste hmm. bu ñu amul méthode pour discuter seen biir solution soo moytul euh, dina am euh, euh, dina am xuloo dina am xeex mais dina am aussi création beneen beneen parti socialiste. Mm-hmm. parce que nit ñi mënuñu xaar rek fii ba deux mille vingt quatre fekk PS waxul lu leer. ci affaire du renouvellement instant ci ci direction bi kan kan la ñu war ñu war a tànn mm-hmm. donc loolu il faut impérativement ñu nangu discuter suñu nangu discuter nag xiiroo ak ŋaayoo dina am dina am seen biir. tey jii ndax gis nga profil bi nga xam ne moo mën a toog dajale njabootu parti socialiste. waaw du yomb du yomb du yomb parce que euh, Aminata Mbengue Ndiaye euh, une grande dame la parti socialiste la. lañ ko xamee euh, socialiste bu mag la. Mhm. sëñ Mbaye Thiam aussi parti social lañ ko xamee foofu la Euh, ambition am bi mu am bon lu lu lu jaadu la. Mhm. mais entre ñoom ñaari am na ñeneen aussi ñu ngi nekk ci suuf. mais ñooñu musuñu noppi musuñu ànd ak Ousmane Tanor Dieng mais euh, d'accord nañu pour des léegi ñooñu ànduñu ak euh, Aminata ànduñu ak Serigne Mbaye lu ñuy laaj ñooñu mooy beneen partie socialiste bu bees donc loolu soo gisee loolu mu am ci biir parti. Mm-hmm. chance parti bi mooy toog waxtaan ba juboo ci benn kaddu su suñu mënul waxtaan mënuñu juboo c'est sur et certain que loolu mën na leen indil euh, comme ni ñu gisoon ci temps Djiboka comme ni ñu gisee récemment ci ci mais loolu mën na leen dal su fekkente ne euh, amuñu expérience pour vraiment discuter. seen biir euh, gën a juboo mën a am benn benn yoon su loolu moom su amul boo moytul dinañu am euh, di parti socialiste bi dooleem dina wàññeeku te xëy na xam naa ne aussi mën na am ay départ. kon njottu nga ne si tas la jëm daal. ah suñ ko moytul daal suñ ko moytul parce que euh, gis nga Ousmane Tanor Dieng lu ñu ko mën a critiquer ci biir parti socialiste. Mhm. au moins moom amoon na organisation. amoon organisation téye leen 2012 ba 2019 kenn demul euh, mu mu maitriser leen euh, ba am aussi euh, capacité d'influence. Mhm. bon Ousmane nekkutul fii. yaakaar na Aminata ak Aminata Mbengue Ndiaye ak Serigne Mbaye Thiam aussi amuñu autorité Ousmane Tanor Dieng bi mu amoon. Mhm. donc donc absence d'autorité boobu. il faut ñu ñu ñu dug ci euh, pour jéem a gën a discuter parce que affaire bi mooy mooy waxtaan suñu waxtaanul rek duñu duñu duñu mën a tànn leen li nga xam ne dina leen doy ñoom ñëpp et loolu c'est vrai que am na risque de temps que tey jii euh, boo xoolee xalifa Sall demul delluwul ci parti socialiste mais am na ñu bari ci parti socialiste ñu ngi ànd ak xalifa mm-hmm. donc loolu bu ñu moytul mën nañu jógee am na ñu nar a jógee parti socialiste dem. rejoindre Khalifa su fekkente ne euh, euh, Aminata Mbengue doyu leen euh, Serigne doyu leen. am tamit beneen parti bi nga xam ne jamono ji ñoo ngi ciy gis ay jafe-jafe muy parti démocratique sénégalais am ñu waxoon ne. existé tul parce que tamit yàgg nañoo gis jafe-jafe yi ci parti démocratique ndax li ñu gis dernièrement euh, ci euh, seen ndaje bu mujj bi wonewul wala dëggalul wax jooju. waaw loolu lu am la. Euh, parti démocratique sénégalais daal depuis bi mu perdee nguur gi 2012 ba tey jii. Mhm. parti bu bu xametuñu parti démocratique sénégalais. Mhm. amatul doole bi mu amoon. Mhm. am boo xoolee sax am am euh, ci wàllum organisation euh, ba tey ji malgré def nañu renouvellement euh, instance yi ba tey ji daal PDS nekkul parti stable dafa am problème moom mooy bi nga li nga nii keroog bon dañu toog di xeex seen biir loolu dafay wane problème organisation am nañ mais problème bu gën a fay mooy que parti démocratique sénégalais dafa nekkatul acteur politique duñ ko gis fenn. Mm. du du débat public du du du du du lutte sociale euh, bon euh, vraiment du du du du PDS bi ñu xamoon ñun ci Sénégal. Mm-hmm. donc loolu parti bu wàññeegul bu bu gën a faible. Euh, loolu aussi euh, lu muy firnde mooy que amul amuñu njiit même bu fekkente président Abdoulaye moom mooy secretaire général ba léegi. Mm. vraiment PDS amul ki nga xam ne daal mën na mën na mën na wuutu. Euh, euh, Abdoulaye Wade mën na téye euh, PDS donc problème de leadership bi dëgg le PDS am ko. tey am na benn libéral bi nga xam ne daal dina génne ci page benn contribution bu mu def nee na xalaatam la alliance diggante PDS ak PASTEF tey ban poids la boobule alliance. mën a am. waaw lu mën a lu mën a am la. ba su fekkente ne xool nañu daal Sonko depuis deux mille 2012 ba tey ji ci ci parti opposition la la ñu bokk. Mhm. Euh, Sonko si ci opposant yi ñu gën a ràññale teg. Mhm. donc euh, euh, Ousmane Sonko ak Pastef nu ñu taxawee su fekkente ne ñoom mën nañu ànd ak PDS. loolu lu mu nar a tekki mooy PDS dafay gën a nekk parti d'opposition. Mhm. et loolu Pastef bu àndee ak PDS quand même ci sur le plan politique. lu rëy la lu rëy la soo soo xoolee euh, Ousmane Sonko nekk troisième candidat ci présidentielle deux mille dix neuf kooku su mënee àndee ak parti PDS bu am expérience depuis deux mille mille neuf cent soixante quatorze ba tey ji mhm. bokk ci les grands partis loolu bon en tout cas ndam opposition bi su amee su amee euh, alliance diggante Sonko ak PDS. Euh, dina am euh, dina am ñuy waxee daal c'est un pas c'est un pas ci organisation de l'opposition parce que gisaguñu lool depuis mille 2012. ba mhm. Macky Sall faloo ba tey ji gisuñu benn force benn force de l'opposition daal bi nga xam ne mën na tiital nguur gi ci élection wala ci action politique. kan mooy gagné ci boobule alliance bu amoon tey. ah bu amoon tey moom sama gis-gis euh, Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade mooy gën a mooy mooy gagné parce que euh, moo am expérience moom mooy leadership euh, vraiment bi nga xam ne daal am na am na expérience am na influence. Mm-hmm. su amee parce ki xam ne dem na sax ba nekk troisième candidat ci benn présidentiel. Mhm. loolu day day yokk doole Abdoulaye Wade day yokk leadership euh, Abdoulaye Wade ak PDS. Mhm. wante nag aussi Sonko aussi dina gagné parce que bi mu commencé politique bi léegi euh, amul alliance ak grand parti muy muy PDS muy réew mi. Euh, ak ñeneen ak ñeneen ba léegi Sonko amul benn alliance yu mu mën a téye ci ci opposition bi. Mhm. donc loolu soo amee moom dina am euh, dina am euh, dina am succès euh, mais aussi dina jàng dina jàng que avenir politique am mu ngi dépendre non seulement lu muy def nii Pastef nekk un grand parti mais aussi mu am alliance alliance il faut que Sonko sorale que pour vraiment mu mu gën a dem. ci élection yi ñu dëmmal mhm. il faut mu am capacité euh, am alliance surtout avec les grands partis ak les grands leaders foofu lay jëlee expérience politique ñëpp ñëpp foofu lañu jaar bon moom tamit xam naa ne foofu la foofu bëgg a jaar. monsieur Mamadou Sy Albert ñu wax tamit euh, jamono ji la xew ca Guinée tey ji euh, nan nga ñu mën a jàngatale la fa xew. waaw loolu xam nga doy waar la parce mm. que bon voté nañu voté nañu ci jàmm dimanche. mais euh, euh, dimanche lundi euh, léegi ñuy dégg que Seydou Dalein Diallo comme candidat opposition la woon moo gënoon am doole ci opposant moom déclaré ne moom moo gagné. Mhm. bon loolu nag euh, bett na bett comme d' accord noonu que day ba day participer que day nangul seeni joxe résultat yi. Mhm. su élection bi pare mu wëlbatiku moom mu déclaré que. Euh, gañe na loolu euh, baaxul ci démocratie baaxul ci moom. Mm. parce que lu moom mooy déclaré boobu d'autant que soo euh, déclaration politique la rek la def xam naa ne nag ñàkkul moom tamit muy def calcul parce que ki mu amal affaire mooy Condé xam na Condé bu baax a baax. Mm-hmm, mm-hmm. xëy na dafay bañ ñu koy bett. ñu ñu ko ñu kon ñu déclaré Condé gañ na premier tour loolu loo xam naa ne loolu lay bañ. loolu loolu lay bañ mu sóoraale que mën loolu mën na am mais mu anticiper pour def pression sur konde def pression aussi sur euh, euh, Séni ak opinion guinéen yi. Mm. ñoom ñëpp mu préparer leen que que que moom moo gagné xam naa ne daal. bon erreur politique la c'est vrai le fait que mu déclarer moom moo gañ donc selon vous du stratégie bu baax. non non non non non du stratégie bu baax parce que Euh, bon résultat yi nu mu tëddee mooy que euh, mën na mën na am deuxième tour. ah ma numéro résultat yi ni ñuy commencé génn ni mën na am deuxième tour su fekkente ne moom dafa gëm ne am na am na deuxième tour warul wax gañe na. Ah, dafa waroon xaar dafa waroon xaar tuuti. Euh, ba résultat yi gën a gën a consolidé wu. Mm-hmm. su gisee nag euh, ñu koy njuuñ njaaj élection yi loolu mën na génn mais teel na li mu wax dafa dafa teel. Euh, dafa waroon am temps de repli xaar ndax vraiment am na consolidation deuxième tour dina am su fekkee deuxième tour dina am lu gënoon sax mooy mu wax par exemple su ko wóoroon dina am deuxième tour mu jàpp ci deuxième tour bi moo gën a tactique que ne man gagné naa parce que fi mu nekk ni euh, risque bi mooy que Condé euh, am na doole am na nguur bi euh, am na maîtrise am na expérience aussi mën na déclarer gagné na dès le premier tour jàpp ko teg tëj tëj ko bon loolu euh, Seydou daf ko war a ko war a monsieur Mamadou Sy Albert merci beaucoup. merci jërëjëf Elisabeth. may fàttali ne analyste politique bi lañ doon dalal tey mu jàngatal ñu situation politique bi simim réew ca ak ca Guinée Conakry merci beaucoup. Conakry merci beaucoup.